ñu baal ma nag ci qualité baat bi ni muy génne euh, jagadi la waaye ñu baal ma te ñaanal ma ci dañu dajee tey seet ni réew mi di doxe te ñu bokk ci réew mi di am fu ñuy roye te daan dégg suñu kilifa gu baax nga daan ne xanaa lu ma saña di saña di ci réew mi laa bokk mu suñ bàyyi El Hadj ci loolu la roy ci seen wax la sukkandiku waaye bu fekkoon ni wax dana doy limu fi wax addina yëpp dégg ko mu jëf ko addina yëpp gis ko mu dox ko addina yëpp teg ci seen bët kon dana doy waaye santaane yàlla du am fu mu yem ndax ñaan yàlla jaamu yàlla la ci yàlla dafa wax ni waabud rabbaka xatta yaatiyakal yaqin maanaam jaamul yàlla ba ba ñu lay tëral ci kuusu bàmmeel ñu yëkkati nuyoo nag di ziyaara kilifa yi nga xam ne yàllaa leen jox cër teg leen ci suñu kanam nuyu suñu kilifa gale ci Louga di Thierno Bachirou Tall ak njabootu Cheikh El Hadj Omar yëpp nuyu Madani nuyu Cheikh Muntaqa ca ca Touba mënoon na ni limu mu wax ci fan yi bu ko ñëpp doon déglu di ko jëfe kon kenn mën na bañ a wax te doy loo wax jooju ndax boo dee lim ci réew mi ñi fi baax Ceerno Muntaxa kenn du ci gën a ci mbaax feeñ na ci bindam feeñ na ci waxam feeñ na ci jataayam ah, fa tabarakallahu ñu yëkkati kàddu nag jëme ko ci mbooleem kilifa yi fi ne ah, Mahi Niass ci Kaolack di ko nuyu di ko ziyaara di nuyu Serigne Ndiassane di nuyu Serigne Abdoulaye Thiaw Laye di nuyu kër maam Alaaji Njëgal ca Thiès Muniru Njëgal ah, di nuyu Serigne Thiénaba di nuyu Serigne Cheikh Tidiane Ba ci Madina Gunaas di nuyu waa kër Thierno Baro radiallahu taala anhu ca Mbuur di nuyu Cheikh Tidiane Niass ca Lewna Lewna Niassène moog njaboot ga ñu ngi ciy nuyu mboolem kuy kilifa te dëkki Fuuta wala nga dëkkee Paal wala nga dëkkee Jolof wala nga dëkkee bawal wala nga dëkkee Kajoor képp kuy kilifa diine ñu ngi la ci euh, ñu ngi lay nuyu gila la ziyaara ñooy suñu kilifa waa kër Serigne Abba Sall Mansour Sall ci seen kanam ñu koy ñaanal mu yàgg fii te wér te njaboot gi it yàlla musal leen yàlla na ko yàlla def bijaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam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 xew-xew bi xew nag moo di xam ngeen ni réew mi jaaxle am na fi ñu ngi jëm ci at bi jaaxle bi tàbbee ci réew mi ak léegi maanaam jaaxle bi jé dugg na fi te ñu bare yëguñu ko bi muy siiw nag lé ak léegi léegi mu dem ci at mu di loo xam ne lii ce yàlla la bàyyi ko wàcc ci suuf si yàlla it muñkat la te li yàlla nangul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel na nangulu ko woon yonent yu jëkk ya ndax booba lu waaye mës a def rek gis ko ci saasi ah mu mel na waxtaan wi li ciy bokk dana xaw a am solo tuuti ndax xaw mu lóot xeet lañu woon yàlla yebal ci ñoom ndaw xaw mu lóot mooy góor jigéen ya yàlla yebal ci ñoom ndaw ndaw la wax ak ñoom ñu weddi waxu yàlla janni ndaw ndaw la teg fale yàlla walbati suuf xëpp ci seen kaw yàlla nag du weddi boppam بمو يوني يونتي محمد تيغاتل صلى الله عليه وسلم دفا وحني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كون لوبيس امنا تا دفنوكو نيار يون يلا وحناني ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر بأي بجيخ mu mel na kooku ku yàlla bind nga jógee ci aadama te looloy dox ba léegi cër booba am nga ca wàll waaye bi yonent bi ñëwee mu wax ko ni ko nag ñooña ma wutaloon bi nga ñëwee nag yaa gën a yeyoo cër bi yaag saw ñooñ kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yéen yéenay tànnéef yi ñu jox leen baat mu mel na lii xew ci jamono ak ni jamono tëdde ak ni muy doxe yàlla mi dara umpul atte na ko ni yonent bi bu fekkee ni dañu dem ba ñépp mënuñoo nangoo baax kon na ci am ñu baax boog wal takum minkum ummatun يدعون الى الخير لولو يالا وخو يننتي صلى الله عليه وسلم ньоญا نك يالا تاننا لين سي سين جامانو ديفال سينيغال لو خامني كير لا بو نيكو وور نيپ امونوكو سينيغال لي في نك تي مك ñu àgg ca yàlla ñépp nangul leen ko badi leen topp barewul ci yeneen dëkk yi ci des dëkk yi ci des daa ci dégg kenn wala ñaar waaye Sénégal yàlla defal na ko sutura defal na ko xéewal ci loolu dajale fi gaayam yu bare ñooña itam biñ fi ñëwee yàq xewul wala latewul yàq sax ba fi iblis nekkee ba léegi yàq ngi fi waaye ba fi yàlla nekkee ba léegi it defar a ngi fi lu baax a ngi fi ñooña nag yàlla leen beral boppam tuddee leen ni ni addina mën a jaxasoo inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun loolu ci ñamu baaxal ñu jox ko seen bopp mu nangul leen ko mosal leen ci boppam ñooña la ñu doon ñaan yàlla yàlla nangu na ko ba defe naa ne nanguwaale na ci luñ ko ñaanul ñaan nga nangu ko it barkeel moo tax yu bare bare bare ñu mucc ci bu ngeen seetee histoire Afrique li fi xew-xew ci tuur deret ak jàkkaarloo ak jàmmaarloo yàlla musal na ci Sénégal senegal mësu ci bokk te yàlla bu mu ci bokk yàlla nañu yàlla yokk musal du tere nag ñu sant ko ci nag sant ci yàlla bu baax ci sant goo xam ni duñu ko mën a matale waaye dañu koy ñaanaat mu wuutu ci boppam santal ñu boppam sant gi war ci moom ndax li ñu am ci jàmm ak néew di ko xeeb jàmm du doy loo ci am lu mu bare bare du doy jàmm rek la nit mën na dunde du gu teey te yàlla nee na ku ma sant rek ma dolli la kon yàlla la ñu yàlla di dolli yàlla na ci jàmm bokk ak mucc ak sutura ak juboo mu mel na réew mi am na lu fi wàcc lu fi wàcc nag yàlla nee na li fi wàcc yéen a tax mu wàcc fi mu di balaa bii fi wàcc ñu di ko tuddee pandémie tur wu ne tur wu nekk tudde nañ ko ko waaye jëmm ji kenn mënu ko wane bi nit ñi bëgg a rey seen bopp lu ne ñu dugg ca docteur yi di werante ñii di weddente lu ne am ñu naan jàngoro la ak du jàngoro yàlla wàcce na fi jàngoro jàngoro ji ñëpp teg seen bët mu jaaxal ñépp ci gannaaw rekk képp kuy dem marché ragal nga jënd jén lekk ko lee nga ndax feebar bi daloon ñi daa feebaroon ci géej gi moo di feebar feebar jàngaro lay doon am fu mu feeñ ci yaramu doomu aadama ñu xam ni garab gii lañ cey def mu faju loola yàlla doxale na ko fi lu ñu ko mën a taawile moo di lii mooy feebar lii am dal ci géej gi ba ñëpp jaaxle ci lii lan la ñu seet seet xamuñu lan la ñu ne du ci ndox mi du ci jën yi du ci feneen fan la jóge ci yàlla la jóge ndax jàngoro feebar yépp jaamu yàlla lañu waaye la ca yàlla wane mo di wér na faté ko ñëpp delluwaat nañ ci jën bii nak fu ne lañuy tuddé turu yi lu melni nak bu ma masaan am dafa daan wacc ci benn béréb ñu di ko soow Ebola waccion na fi nek Guinée ñëpp tej sen frontière choléra wàcc na fi sida wàcc na fi yeneen ak yeneen wàcc na fi sida nag li ko wàccee mooy mbon mbon yu paase woon ci jamono yàlla rëbb ko ba alak ñi ko doon def ñu delloo siwaat ko mu yàlla saxal ko ci ñoom ba kenn mënu ko fi jële ba léegi dañ ci noppi waaye ba léegi sidaa ngi fi ah, waaye li mujji mooy lii ñuy wax coronavirus coronavirus dañu amoon jamono ñu ni dugg na ci réew mi na ñëpp tëju na ñëpp fegu kenn ku ne jéem a sabablu aar sa bopp ndax kenn mënul aar sa bopp dangay ngay sabablu lu la aar yàlla lay aaral boppam yow nag da ngay sabablu rek ñuy ñaan tëj jàkka yi tëj jumaa yi lu ne ñu tëj ko ni ñi am ci wuute wuute googu nag feeg jógu lii dox ci réewam li fi yàqu dana bare ay nit dañuy nangu dëgg di waxtaan di nangoo déggante dégloonte déggante su ko defee fu dëgg jóge ñu nangu dëgg googa jëfandikoo ko suñu borom dogal na coow li bare na ci ñu dema dema dema dem banaan léemu jeex ñu ni fabuwaat na dellu siwaat ñu di ko tuddee deuxième vague te dañuy wax ni euh, il n'y a jamais deux sans trois kon deuxième vague bi yàlla nañ ci troisième vague ngi ci gannaawam am na sax ñu xër ba ne quatrième vague ngi fi dañ koy tudd nag waaye du tere ñu ñaan yàlla yàlla musal ñu ci jële ko fi mu dem dem waaye ñun ñu des fi jaamu yàlla yëpp des fi jaamu yàlla yi nag ñaanalu ñu jullit ñi bàyyi ñu dul jullit képp ku yàlla bind rek yaa ngi ci biir ñaan gi li yàlla di maye ëpp na ki ko ñaan kon bu ca jotee war na ko mën a bokk ak ñëpp yàlla nañu yàlla defal loolu yàlla nag dafa ni wa وذكر إن إن فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كان نيميول أمول بوفارو بني كان نيكو تيغا ديف نانغام واي بو واخي لي يالا واخ جوتال لامو لا سانت با لولا نيب ديغكو لا تي ديس نك يالا نينا بايل سي سما لوخو illa man tawalla wa kafara fa yuadibuhu llahu adaban akbar yal nañ ci yàlla musal lii na xeet la ci azab ci mbëggalum yàlla maanaa comp la rek bu yàlla di wane ni mbugal a ngi fi mu rëy mu ko ëpp àggaguñu ci nag waaye ma mosal leen ko ndax ngeen gaaw a dellu siwaat ci man بشرس مني فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى bu wax jotee fàttalente jot ki nangoo fàttaliku te ragal boroomam dana fàttaliku la ko yàlla sant mu def ko bi ci des فذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين بجل اسموني وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين آه، لوريتم بنان له بو يالا وخني بو لين توك رك دي نيلو بو دارا خيول دارانغي في دي لين فاتلنتي تي لي ني فاتلنتي te suñu lépp moo ko moom waaye am na lu mu ñu may diggante fajar ak tisbaar yàlla may na ñu fi ñu dox fi suñu soxla waaye bu fajar jotee ñu jullil ko jaamu ko su tisbaar jotee ñu jullil ko diggante bi li ci ëpp nag yàlla may nañu pour ñu defare ci suñu dund ku ci am soxla doxi ko léegi réew mi ñëpp a ngi soow li Seydina Omar ibn al-Khattab waxoon nag ba ñu ko ne ndax dangay ngay daw dogalub yàlla mu ne waaw damay daw dogalu yàlla waaye ci dogalu yàlla lay làqu ji su ma bëggee rëcc ci dogalu yàlla laay làqu ji loolu mu mel na ñun dañu bëgg daw dogalu yàlla waaye dawuñu ko dañu ko ëppale suñu bopp dañu rus ëppale suñu bopp yàlla di dogal muy dal ci suñu kaw moo tax ñu bare ni duñu tester seen bopp pour xam ndax feebar nañu walla déet waaye ñi feebar bare nañu lool ñii dee rus nañu ni ci Covid bi la dee bu ñu dee ku dee ni neex yàlla noonu nga dee bala yàlla di bind na bind na ci bindaale ni ngay dee ak fi ngay dee ak kañ ngay dee kon bu jotee li ci yàlla wax mooy dee googu ngeen di daw dàqu leen dafay daw si jëm si jëm si ci yéen ngeen da wuti ko inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum loolu moo di ñun dañuy daw dee waaye da dee la daw wuti ko bu kenn bëggul dee waaye dee mënul ñàkk ndax ku deewul di yàlla yàlla rek a dul dee kon kenn ku ci nekk boo dundee te bañ a dee la ngay ragal ca dee mooy ëllëg booy taseeg sa boroom nga préparé ko léegi defar sa digganteeg yàlla te defar sa digganteeg yàlla yombul waaye boo ko bëggee defar jaare ko ci nit ñi ci nit ñi nga mën a jaare euh, ba mën a defar sa ëllëg réew mi nag am na ñu bare ñu fi nekk di taxawaalu ñoo xam ni ñii buñ la yelwaanee doo leen sarax bu ñu waxayoo doo leen wuyu waaye bari na ci ñoo xam ni ñii seenug doyadi googu ñu doyadi moo yërmande yàlla ci biir jaam yi ndax yàlla ñaar la sàkk sàkk na waayam ju baax ju ko jaamu may ko la mu koy may wane ko ñëpp xam ko mu def ko ci xol yëpp ñëpp topp ko loolu miin nañu ko ndax ku ne am nga sëriñ am na ñoo xam ne ñii yàlla sàkk na leen def ci ñoom li ñu def ci ñoom waaye amuñu yére yu ñu sol amuñu dàll yu baax jëmuñu fenn da ngay taseeg ñoom rek waaye itam nag du waxtu ne nga mën a taseeg ñoom Euh, dafa am jamono ay nit yoo xam ne ñu nga woon ca am ci ku siiw ku ñuy wax bàcci jaxate bàcci jaxate su bëccëgee mu fab xeer sànnente xale yi su guddee kenn du ko gis benn nit di dox guddi dem ci wetu armeel ya fekk ko mu toog ci biir armeel yi solu solu yére yu baax nit ñi ni ñu bëggee baax ak ni ñu bëggee ku baax mu wër di ko wër di jaabante amee kurusam ci booru booru dex gi pour bëgg a xam kii kana baa ci jaaxate fa tox su ko mu taxaw ma ne ko kaay mu ñëw mu ko toogal mu toog ci kaw bàmmeel yi mu xam nga ma mun ko déedéet mun ko ah kay xam nga ma kay mun ko ah, xaw ma la de mun ko mën a bàcc jaxate kooku tiit bàcc jaxate ban mu ne ko bi nga xam muy sànnente xeer ci mbedd mi su bëccëgee ma sànnente xeer su guddee ma fanaan ci sama borom léegi waxtu wi ma war a génn àddina jege na ndax nit gis na ma xam na ma te bu ma feeñee rek dee léegi nag yaa ma gis boo ko yëglee ba ñépp yëg ko dinaa génn àddina soo nee patt nag kenn bañ ko xam dinaa fi yàggaat góor ga dem toog toog toog toog ba mu yàgg mu ni nattu la ci man ma gis nitu yàlla bu ñuy doya dal may ragal dee ba bañ ko wax daal di wër ndar yëpp yëgal leen ko ni leen bàcc jaxate du dof waliyu la nitu yàlla la bàcc jaxate ñëw ci moom nuyu ko ni ko mbir mi kat siiw na duma la fi bàyyi yow mi ma feeñal du ma la fi bàyyi talaata laa la ngay dem dama la yóbbuwaale góor ga ni ko ndokk mu ma gënal dajeeg yàlla mu ni ba ñuy toroxal sama jaam bi nga xam ko te waxuloo ko loolu yëpp jaar na fi mbokk yi bañ guddal wax ji moo di ci turu njabootu Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu man ma jógee Tiwaawan démb bërki démb ñoom ñëpp ñu d'accord ci benn kàddu ni ma kenn ku ci ne war na wax waaye naa leen jëlal seen kàddu jotalal leen ko seen mbokki jullit yi seen mbokk senegal yi ñu ñu dégg wax ji ñuy wax ñu wax ni nañu ñaan yàlla nañu delloo suñu bopp ci yàlla ñaan ko fii mu ne amul benn nit bu am kàttan wala nga bare alal wala nga am baat wala nga am doole ba mën a jëlee lii fi nekk te yàlla àndu ci yàlla rek ko fi mën a jëlee yàlla it buntam tëjuwul tàllal ko loxo ñaan ko toroxlu ci kanamam wàcce sa bopp

lépp loo gis rek ci xalaat lay tàmbalee kooku moo mooy yàlla la euh, xalaat yaa ngi fi ci dëkk bi xam ngeen ni at yi passé li fi jógee li fi jógee ci wax wax yu ñaaw li fi juddoo ci wax yu bon li fi juddoo ci saaga li fi juddoo ci saagaante ci ay mukallaf yoo xam ni tey bu senegal doon jàng ñoo ko war a téye bu ñu demee bay saaga ci réew mi kenn dootul xam foo nooy def foo jëm ah nee nañu docteur bi la war a faj bu feebaree bu feebaree yow nga war dee yow mi feebar te dafa am docteur bu nekkoon njaareem mës a téléphoné Tiwaawan ci man mii la yem ni ma foofu kër Serigne Abdou ma ne ko waaw mu ne moom laa soxla woon ma ne ko dafa sore téléphone bi mu ne ma yónni la ci moom ma ne ko waaw mun ma waxal ma ko ni ko góor gi Alioune Tall ca Bambey dafa feebar ñu indi ko njaareem feebar bi nag yàgg na bëgg na ko gis waaye boobu ba léegi gisu ko te góor gi Alioune Tall tey ci guddi la war dee ma ne ko loolu duma ko wax sëñ bi ndax deewu Alioune Tall nekkul ci sa loxo mun ma kon su dee na nga tudd ma wax ko ko mun ma kon su dee ci yow la ma ne ko waaw baax na waxuma dara sëriñ bi waaye ma topp ko rek ba mu ba muy tëj di tëdd ma soo taxalikoo moom ba mu xëyee suba teel it ma ñëw toog kafe ga mu doon naan desit wa man la ko may ni ma dama bëgg a dem njaareem seeti Aline ndax dafa feebar boobu ba léegi may waaj xanaa kon deewul ci guddi gi mu dem ba midi di jot mu dellusi ma daw ñaw nuyu ko ba noppi papa liñ taal na mu def mu ma tànne na yàlla baax na moo ñu gunge ba ci bunt ba moo gunge ba ci bunt ba ma xanaa kon deewul li docteur amul mu ne patt ba ma yàlla mooy karim ku jox sa bopp ku dul yàlla sa wàcc nga ko alintaalkat docteur ba ko doon faj deena bii li sëñ ab dooma ko wax ñu xam ni kon yàlla amee nit ñi bind leen bind nattu yi ak dogal yi waaye it bind sabab yi moo tax mag ñi buñ daan naan doomu garab sax buñ ko yëkkatee ba ni nii fokk ñu tàggu yàlla soogaa naan garab gi yàlla maa ngi naan kii damay sabablu kii duma faj jaamay faj Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mii ñu xaloon dëkk moom mu jur ñu njaboote ñu diggante fu muy tàllale loxo di ko jox nit di ko nuyu sax liñ daan dégg ci waxam ci suuf loxo bii ma tàllal di ko jox nit ki yàlla na jëmm yàlla rek tax bu jógee dox wut si la loolu lay wax tànk yi may dox yàlla na rek yàlla rek tax kon ñun lu ne gis nañu ko bu ñu sàgganee ci ñun la ñoom mat nañu eh, matal nañu wane nañu jàngale nañu wax nañu ñu dégg Sénégal nag li ñu gën a mën weddi weddi la ñu gën a mën waaye li fi nekk fokk ñu dellu ci yàlla li ñuy delloo ci yàlla barewul dañu ni nañu saraxe sarax ci liñ ci tudd jafewul barewul kilo ceeb kilo suukar liitaru dëwlin ñett yi kilo ceeb kilo suukar liitaru dëwlin boroom kër gu nekk na ko def ah tey nag bu diisee ci yow nga ni cëpp Tiwaawan baa nga ni cépp Tuubaa daa fa joxe lu ko ëpp kon jox ko jaamu yàlla bu ko soxla wuutu yàlla ci moom joxal ko ko ko mu مو دلالك وخلم يلا دلال سخل مسل فانك واجوري ترى لن جوه لن لنعم نخ يلا بمي دين كان واجور بولي وچي يننت بوبم لوخ بوبم لوخ آه دفوه هني وقد وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا فمكو تودي لك احسان لا شي تك تك وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا تك ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن kon teral waajur yi waaye terlente ci suñu biir kenn ku ci nekk na xoole moroomam yàlla teral ko wax nañ ko keroog ci Tiwaawan ni ñun dey ku ci nekk ñu ngi lay teral ngir sa waajur waaye yow teraloo kenn koo gis rek defe ni moo la war jox moo la war simil dal moo la war a toogal ci suuf loolu mi ngi ñuy dal te loolu ak cànkute la ci ñun seytaane nag mooy liggéey mooy dugg ci xelu nit ñi bu kii nangoo mënu ko ko tere mu ñëw yow nangu loola nga nangu ko waaye yonent bi la mu wax alxalqu kulluhum iyaalullaahi ku gis njabootu nit di ko teral boo gisee njabootu yàlla war ko teral nañu wormaalante yërëmante rusante euh, jàmm mayante jàmm ñaanalante yàlla ñun ñëpp ñu bokk ko bi ci des nag moo di gannaaw sarax yooyu ñu tudd ñett rek la kilo ceeb kilo suukar liitaru dëwlin boroom kër bu nekk na ko génne jox ko ko ko aajowoo ka mu tane mu jox ko ko ngir jëmm yàlla boo ko ko dee jox nag bu ko bu ko bu ko ca xeeb jox ko ko ngir yàlla ni ko am yàlla jox la mu nangu ngir yàlla soo defee bu nangu ngir yàlla yàlla nangul la ndax yàlla ngay jox الشيخ الحاج عبد العزيز السي رضي الله عنه dafa am bés ca aynumaa ji mu jox benn nit xaalis ñu ngi toogoon ñu ngi toog ci perron bi nii mu ni ñu ni ah seen mbir ki mu jox xaalis bi naan kat sàngara la dafay naan man ma ñëw ba ci moom ni ko papa gars yi de dañu wax ni ki nga jox xaalis dafay naan mu ne ma naan ma ne ko waaw mu ne ma ah man de ki ma jox du naan ma ne ko ah la gars yi wax mu ne man loxo yàlla ci loxo yàlla laa teg ma benn loxo ci loxo yàlla laa teg li ma joxe ci loxo yàlla laa ko teg loolu kuy def ngir yàlla dangay ngay ni yàlla ngay jëflanteel waaye la ngay def na bu ko naw ndax boo wanee yàlla li nga ko defal mu won la li mu la defal yaag lang nga ko defal daa ngeen dugg ci biir la mu leen defal kon lu defal yàlla na wéet jooy ni lii ma def dëppoowul ak li yàlla yeeyool booy defal yàlla na sa cër yëpp def na sa xol def na sa xel def na sa xalaat def na sa yéene def na sa lépp na def gannaaw loolu ñu gàttal waxtaan wi moo di ñaan gu ñu war ñaan ñaan gi dañuy jàpp ba set julli ñaari rakk jublu penku nag julli ñaari rakk ndax kuy julli fokk nga jublu penku boo boo noppee nga toog sa xel na nekk ca yàlla xam ni moom nga toogal nga jox ko sa lépp bañ a xalaat dara def téeméeri astaghfirullah أفك أبن تيميري أستغفر الله أفك أكبن سنغال نك ليلنغ ديغو كولاني خاوما نك لانكوي وغيكي ولف كون تيميري أفك أبن موي أونز ولف يديغو ولف تديغو تباب كسي نانيو جابني تيميري أفك أبن موي أونز ñëpp dégg ko ku déggul tubaab dégg nga wolof ku déggul wolof dégg nga tubaab am na ñu boole ñaar yëpp dégg leen ah téeméer ak fukk ci astaghfirullah téeméer ak ci salatu ala nabi ñu xamal leen ni nag salatu bu mën bu waay mën na ko def ci yonent bi ndax yonent bi li ñu koy jox ci salaatu jëmul fenn fudul ca moom ca yonent bi rek lay jëm bu kenn defe ni boo jàngee salaatul fatiha mu dem Tiwaawan déedéet ca yonent bi la jëm du dem faas du dem feneen ca yonent bi la jëm ah, loolu muy salaatu ala nabi bi صلاه الامي ميفي صلاه النار ميفي صلوات يبارنني واي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم مجيخ nga يا كافي ya kafi, ya kafi, Kouko faté, sa ci café ci café Bo defee xel ci café ku kafi. Kafi. Ya kafi, Temer ak fuk ak ben 111 ci latif nga jàng latif yaa te nag barewul 903 nga koy jàng 903 mooy juróom-ñeenti téeméer ak ñett boo ko seetee mooy juróom-ñaari juróom-ñaaru. juróom-ñaaru juróom-ñaaru 129. te boo ko defee mu mel na ci benn jataay li nga ko waroon def ci semaine bi yëpp def nga ko ci benn jataay. 903 yaa latif yaa latif nag waxuñu nga wax yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif génn ci 903 barewul yaa latifu yaa latifu yaa latifu yaa latifu yaa latifu yaa latifu bañ a noyyi ba sa noyyi ta dem nga arrêté aspiré yi mu dugg nga respiré noy mu génn waaye yaa latiifu ngay wax ndax barewul su bare woon nga waxee ko neneen waaye comme barewul yaa latiifu yaa latiifu loolu temps bi nit di sëgg ci téléphone di xool wala muy liir benn ci réseau yi xew-xew mooy gën a yàgg jataayu 903 li ngay xool ci télé làmb jeeg football bi moo gën a yàgg jataayu 903 ci yaa latiif yaa latiifu boo ko defee ba noppi nag bul naan ndox bul naan ndox bala ngay naan na nga nekk ba mu mat une heure de temps une de temps yooyu su matee ba nga xam ni mënuloo bañ a naan benn góox lañ la may nga naan ko góoxu ndox benn gorgée ci ñu dégg tubaab te xamuñu luy góox ñi xamul góox mooy gorgée ni lañ ci benn lañ ci ndox rek mu jàll nga taxaw bàyyi ba mu yàgg te nag fa nga ko defee yàgg fa bu fekkee ni farata amul yàgg fa di def sa istigfaar astafirullah astafirullah ci kaw ni nga defee latif xalaat yi nga ci dugal te bokku ci ndax jaamu yàlla ba mu sotti te xalaatuloo leneen lu dul yàlla yombul ci julli la gën a jafe kon ku koy def xalaatal sa borom fu sa xel demee feneen nga arrêté delloo siwaat sa xel concentré waat ci sa boroom téewaat sa bopp continuer nag dem waaye boo ko dee def nag bul taal télé fayal sa téléphone bëgg ko def téléphone di sone ngay xool ki lay woo kana yooyu àndul ak jaamu yàlla yàlla du seddoo du bokk du lekk desit yàlla moom kenn rek moom dong kot keneen du ko wettali soxlawu ko def boole koo keneen mu delloo la ko suñ ci jógee ñu def xasbuna allahu wa wakiilu xasbuna allahu wa wakiilu حسبنا الله ونعم الوكيل غدف كو جروم بن فكيون اك جروم بن فكيون اك يالا سهلا ولو باري لو توتي تسال سهلا حسبنا الله ونعم الوكيل 65 فوا كي mooy juróom benn fukk ak juróom ci ci wolof pour ñi dégg wolof ak ñi déggul wolof ndax tàmm nañu dégg li ma la wax nii rek lii ah, ah, lii eh, eh, mënuma ko compter kon mënu ci wolof xaw ma compter bi ci wolof xaw ma compter bi nangam nangam ñi naan la loolu mu wax mooy ñaata mooy ñaata mooy ñii ni dégguma tubaab ñi la naan mënuma ko wax ci wolof mooy ñi dégg tubaab te comme ñaar ñoo fi nekk soixante cinq fois mooy juróom benn fukk juróom benn fukk ak juróom bu dee ci tubaab soixante cinq fois ñu def ñaan googu ñaan gi nag gàtt yomb na barewul waaye bu leen ko xeeb de boo teeralee xasbunallahu wa ni'mal wakiil bala ngay tëj na nga jàng bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufaan ahad waxuñu lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas parce que jàng leen lixlaas ñëpp naan lixlaas ñi naan sóoratu di ko def yu kenn xamul du noonu da ngay jàng saar wi ba mu jeex nga teg ci qul a'uudu bi rabbi falaq min charri ma xalaq wa min charri gaasiqin ida waqaba wa min charri nafaathaati fi l-uqadi wa min charri xaasidin ida xasad boo ca jógee nga teg ca bismillahi irrahmani irrahim qul a'uudu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min charri lwaswaasi lxannaasi alladi yuwaswisu fi suduri nnaasi min aljinnati wannaasi nga jàng ko noonu boo noppee tegaat ci sa beneen salaatu ala nabi tëje ko ko doo ko def benn yoon nag da koy saxoo da koy saxoo na ko ñëpp di ko def di ko def di ko def ba mbas mi jóge fi dañ ni dogal yàlla dara mënu ko fi tere agsi waaye ñaan mën na dajeeg moom di buuxanteeg moom ba yomal xayaam mbas mu mel nii dara mënu ko fi jële lu dul ñaan ak saraxe ak tuub ñaan ak saraxe te loolu yonent bee ko wax ñaan ak saraxe ak tuub bu la yàlla joxe alal nag la koy barkeel saxal ko nga am ci la nga ca bëgg mooy asaka génne asaka ñett yi daal ñaan mooy mooy poñe dogale balaa mooy dogale nattu ba nattu doo agsi euh, tuub ak jéggalu ak saraxe sarax nag ñama ci gën nga di ko def di ko def loola mooy dindi balaa mooy tax balaa dana la tiim waaye du wàcc ci sa kaw